Anyways.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 ñu dañoo réer lu toll ci juróomi fan ñu leen di wër daal di leen wër wër wër kenn gisu leen fu ne ñu dem fa lu ne ñu def ko set ngir gis leen waaye li ci mujj am nag moo doy waar ndax xale yi dañu leen a gis ci ab oto boo xam ne ab ñu tariyaax moo ko moom fekk kenn ki ñàkk bakkanam ba noppi bët ya dem kàcce des lottu ba ñu yóbbu ko hôpital bi leen fekkee ci oto bi nag woo nañ police scientifique et technique ñu ñëw jaadi càmbar xool def seen liggéey ba pare waa ma ne laaj bi xale yi lan moo leen dugal ci oto ba fi mu ne nag wubbi nañ ci blanquette moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax waa ji nag moom liggéey yu guddi lay liggéey maanaam vigile la vigile boobu na mu ngi wuyoo ci turu am moom daal njàqare gi mu am mooy jabar ji mayu ko jàmm mayu ko salaam ndax fiirange sawaay ne liggéey guddi bi muy liggéey neexul jabar benn yoon waaw waaw te nag liggéey boobu ci la ko yor ci lay faji aajoom si na sawaay ne daa seetlu ne saa bu ko tàggoo ne damay gontu day gis kanamu ndaw si nu muy sansé sawaay ne mook jabar ji dañoo luwee te nag léegi jabar ji lim koy chantage mooy moom daal mënatul fanaan ci néeg bi moom kese moom dal leen am fanaan ci néeg bi daal moom dootu ko def moom kese walla mu delloo ko kër waay juram yi nekk dëkk ca siin ndax sa waay foofee la takkee jabar indi ko ci ndakaaru waa ji nag fi mu ne nekkul ak ay way juram ndax dañoo génn àdduna te benn magam bi say fii ci ndakaaru moom it dafa luwee ak mënul jël jabar gi sa guddi jagat-jagate yóbbu ko fa ngir mu fanaani fa problème am na kaa am na ndax waa ji mënul bàyyi liggéeyam te nee du mësa nangu ndaw si dellu siin waaye tamit ndaw si jafandu fi mu jafandu nee na ko dal ñaaray mën a am moom daal néeg bi dootu ci fanaan moom kese guddi wala mu jël ko daggal ko paas delloo siin bi loolu amee nag waa ji dafa woo magi dëkkandoo yi ngir ñu waxtaan ak jabar ji ci biir bi ñu toogee nag di waxtaan ak jabar ji ma jabar ji fi mu ŋoy la ŋoy moom daal du fanaan ci nekk bi moom kese wala waa ji daggal ko paas mu dellu siin waaye lii moom mujj naa doy waar di jëkkër ji tamit ci kanamu magi dëkkandoo yi moom it mujj naa wax nee na jabaram ji li ko ko jàpp du lenn lu firange ndax liggéey bi muy liggéey guddi ndaw si dafay yaakaar ne daf ciy jaaree di taxawaalu hm, dañoo fiir nag de ndax nee na bës téléphone dafa sonné fekk benn femme moo juum dal di ciy woote bi loolu amee na ci la jabar ji décroché jot faam bi femme bi ne ko dama juum nee na bu ñu toogaatee as tuut bi sone waat jabar ji décroché waat muy même femme bi ko woowoon ne ko ndaw si dama juum mu ne ci saa noonu yuuxoo ndaw ci téléphone bi ne ko nag di nga bàyyi sama jëkkër ñu naan deetawaay mu coupé téléphone bi dal di effacé numéro bi ba noppi song ko histoire boo xam ni bi mu amee waa koñ bi ñoo ñëwoon doon atte waa ji nee na boobu ba léegi ndaw si ci kër gi la ne di ko gaaral saa liggéeyee ba wàcc mu topp ko doxaankat bu mag bi parfois bu ko joxee dépense sax mu folañ ko mayetu ko jàmm mayetu ko salaam nee na expliqué na ko wax waaye ndaw si daal dafa mel ni ku gumba tëxlu ma ne waa ji nag léegi kon pexe am na moom daal comme ndaw si nangootul fanaan ci kër gi yow daal saa booy gontooti jàppal ci loxo bi kondom kondom ngeen dem palaasu liggéeyukaay ba booy wàcc-wàcc àndaat ak moom ñëw boo leen nelewee ba ngoon ngeen dellu liggéey waaw ma ne nag bu boobaa moom xanaa ji jënd añ ak reen ngeen di dëkk fiiraange baaxul moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax waaye Sadio Mané de ba mu takkee jabaram ji ba maire bi génn ci TikTok bi ne jabar gi du jabaru TikTok TikTok baa ngi ri xale yi TikTok bi daal dañoo mel ni ñoom ñoo moom yëf yi ñoom daal ku ne nga génn di mbel mbel mbel mbel mbel waaye dëgg la de xale bi daal du xale TikTok du xale TikTok de ku toog ci sa pooju ndey am kilifa ku mel ni Sadio fekk la fa mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz